gënnoo gàttandoog tawféexi sëriñ bi m ni ko yàgg amalee cheikh mouhamadou muntaka xalif général des mourides yëkkati na ay tànk nemmeeku jëmale ko ci daara hisbu tarxiya mu di ngan goog sëriñ bi yàgg na ko def di jëmal diggante bi nga xam ni moo dox diggam ak daara hisbu tarxiya mu di ab diggante boo xam ni ëpp na ay at yu bari lu jiitu timis ci la xalif général des mourides ak ñim àndal egsi ci quartier isbu tarxiya bi nga xam ni fa la direction générale nekk responsable moral isbu tarxiya ak ñenn ci jëwriñ yi ñoo dalal cheikh mouhamadou muntaxa ci ngan gi ak kuréel gi nga xam ni diirub ngan gépp ñu ngi doon jàng ay daaju xasida yoo xam ni sëriñ bi daf ci doon kañ suñu boroom ak di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gannaaw nuyoo yi nga xam ni doxoon na ci diggante kilifa gi ak taalibe yi responsable moral Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssouf Diop daal dinay wanale ak Serigne bi yenn ci jëwriñ yi nga xam ni ñoo ko doon teer Cheikh mun Mountakha ci mbégte mi ko ñëpp xamee digganteem ak daara Hizbut Tarqiyyah wane na xar kanam goo xam ni mbégte rek moo ci ne di mbégte moo xam ni tax na ba mu amal lu mu yàgg a def digganteem ak Hizbut Tarqiyyah Cheikh Mouhamadou Mountakha gannaaw ba mu jullee timis ba noppi ci la ñaanal mbooloo mu fa teewoon yëpp laata muy delluwaat